maa ngi lay nuyu ak sa délégation bi ministre sa euh, ministère bi dafa am solo lool dafa tënku ci secteur secondaire euh, su ma sukkandikoo nag ci document bi ci projet euh, du budget 2024 du ministère de l'économie secteur secondaire ñu ngi ko alloué un de croissance de 20 croissance nag pour te ci ay chiffres waaye askan wi dañ war a gis seen bopp te croissance bii nag pour ñu atteindre ko il faut ngeen yokk usine yi Sénégal am na matière première ba mu doy su ma jëlee exemple ci gerte arachide li ñu fiy bay mënuñu ko consommer waaye Sonacos ni buñ ci jëlee seen wàll Sonacos jël ci wàllam li ci des yëpp dañ koy exporter buñ ko exporter jaay ko tubaab bi kilogramme bi ci lu yomb tubaab bi transformé ko ñu importé waat ko diwlin biñ ci defar ñu ñu koy jaayee lu cher chocolat bi tamit même chose gis nga plus value boobu bu desoon fii ci Sénégal kon duñu ma kon duñ fi jooy ay kon duñ fi jàmbat ay abri provisoire kon duñ fi am problème mu infrastructure waaye kon ndaw yi duñu dugg ci gaal yi di dee kon bëkk nii kon duñ ko déggati te usines yi bu ñu buñ ko dooleele ba usine yi buñ euh, secteur bi buñ ko buñ ko jëmmalee yokk usines yi kon taux de chômage bi aussi dina wàññeeku ndax benn usine rek liñ fi mën a recruter yokk budget yi ba pare nañ leen décentraliser ndax su ma jëlee